alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin nabiyina muhammadin wa wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi ñu ngi dénk sunu bopp ragal yàlla di leen ko dénk ragal yàlla moo boole mboolem luy aw yiw suñu borom tabaraka wa taala mi ko am bu ci ragal yàlla lépp luy barke suñu borom mi ngi ko denc ci ragal yàlla ragal yàlla mooy melokaan wi gën a suñu borom tabaraka wa taala gën a tagg ci biir alquranul karim amul wenn yiw wow tey wala wow ëllëg wala wu feeñ wala wu nëbb lu dul ne ragal yàlla moo cay tax a jot amul itam wenn ay moo xam tey la wala ëllëg moo xam wu feeñ la wala wu nëbb la lu dul ne ragal yàlla moo cay tax a mucc ragal yàlla mooy dénkaane bi ñu dénkoon ñi ñu jiitu woon moom lañu ñu dénk nun ñii tey borom bi wax na ko ne dénkoon naa ñi leen jiitu woon te doon jàng téere yi jiitu woon dénk naa leen ko yéen itam te mooy ak ragal yàlla ragal yàlla mooy woote bi yonent yépp mooy màndargam awliyaullah bu ñu dee jàng alxuraan da nga gis yonent yi kenn ku ci nekk di wax aw nitam ala tattaquun moo ndax du ngeen ragal yàlla suñu borom tabaraka wa taala melal wàlli yoom yi na ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yahzanuun alladina aamanu wa kaanu yattaquun nee na ñi nga xam ne ñooy wàlli yu yàlla mooy ñi gëm te amuk ragal yàlla kon nag mbokk yi dana jaadu ci nun ñu war a taxaw ci baatub ragal yàlla boobu settantal ko bu baax ndax ñu borom tabaraka wa taala boole nu ci ñu yor melokaanu yooyu ragal ci cosaan bu ñu ko waxee mooy jaam bi doxale dara digganteem ak li mu ragal suñu borom tabaraka wa taala nag mooy ki nga xam ne moom moo yeyoo taqwa huwa ahlu taqwa wa ahlul maxfira moom rek mooy ki yeyoo ñu ragal ko mooy ki yeyoo ñu màggal ko ali ibnu abi taalib melal naa ragal yàlla nee na mooy nga ragal borom bi tabaraka wa taala nga jëfe alquran nga doylu lu néew li la yàlla wërsëgal waaye ngay waajal foo toll bis bi ngay dellu ci borom bi tabaraka wa taala te borom bi tabaraka wa taala aaya bi mu mujj wàcce yaa ayyuha alladina amanu taqullah na ngeen ragal borom bi tabaraka wa taala wattaqu yawman turjauna fihi ila allah ngeen ragal bis bi nga xam ne ci lañ leen di delloo ci borom bi tabaraka wa taala ragal yàlla nag dana egg ci darajaam bi gën a kawe ni ko Abu Darda waxee su jaam bi demee ba lu mbir tuuti tuuti tuuti mu ragal ci yàlla di bàyyi sax lenn ci li nga xam ne dagan na ngir loola bañ a jaar sabab bu koy yóbbu ci lu xaram ndax borom bi dafa wax ne fa man yaamal misqaala darratin xayran yara wa man yaamal misqaala darratin sharran yara lu waaye jëf lu mu tuuti tuuti tuuti ci lu baax da nga ko gis payam waaye lu waaye jëf ci safaanu mbaax itam lu mu tuuti tuuti da nga gis payam moo tax jaam bi kon lu mbir tuuti tuuti tuuti daf caa war a feeñal ak ragal yàlla borom bi tabaraka wa taala melal nañ ragal yàlla ci alquran ay melokaan yu bari tagg na seen mbir lool te yëkkati ko bokk na ca nam leen melale nee na ñooy ñi nga xam ne dañuy gëm kumpa mooy ñi nga xam ne dañuy taxawal julli ñooy ñi nga xam ne dañuy dundale ci li ma leen wërsëgal ñooy ñi nga xam ne gëm nañu alquran jii ñu wàcc ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye gëm nañu itam téere yi ko jiitu woon waaye dañu am yaqiin bu wóor ci ne àllaaxira day ñëw te la ca borom bi tabaraka wa taala digga lépp day borom bi dellu leen melal ne ragal yàlla mooy ñi gëm yàlla gëm bis bi gëm malaayikaam yi gëm téereem yi gëm yonentam yi di joxe alal di ko jox ñi nga xam ne ay jege ñaale lañu wala ay jirim lañu wala ay miskin lañu di ko jox ñi nga xam ne dañuy laaj di ko joxe ci ak njaam pour mu gore di taxawal julli di joxe asaka waaye di matale kóllëre di matale seeni engagement yi ñu jël seen digganteeg seen borom ak seen digganteeg seen moroomi jaam waaye dañuy muñ bu leen yàlla nattoo ak ñàkk dañuy muñ bu leen yàlla nattoo xeebar dañuy muñ bu leen yàlla tegee ay nattu ay tartar tege ci seen kaw borom bi dañuy mel noonu ñoo ñoo dëggu wa ulaayika humul muttaquun ñooy ñooy ñi ragal yàlla loolu boo ko seetee da ngay gis ne kon taqwa mboolem lu ñuy digle ci lislaam rek mi ngi ci suufu kalimatu taqwa muy baatu ragal yàlla boobu borom bi dellu melal ñi ragal yàlla ci alquran ne ñooy ñi nga xam ne dañuy dund la seen alal ci bu yombee ak bu jafe bu ñu amee alal ju yaatu ak bu ñu amee lu néew waaye nee na bu ñu meree dañuy denc seen mer waaye du ñu denc mer ma muy kiñaan bu ñu ëmbal ña leen merloo waaye dañu leen di jéggal bu duñ yem ci jéggal leen dañu leen di defal lu baax ba bu ëllëgee ñu leen merlooti borom bi tabaraka wa taala ne ñooy ñi nga xam ne suñu rëccilee ba def lu ñaaw wala ñu tooñ seen bopp dañuy daal di fàttaliku yàlla daal di jéggalu seen i bakkaar xam ne bakkaar kat kenn mënu koo jéggale ku dul suñu borom tabaraka wa taala waaye nee na duñu nuur mukk ci seen i bakkaar xam ne lii yàlla da koo tere ba noppi ñu wéy ca borom bi nee na ko ragal yàlla ko du ko def walam yusirru ala ma faalu wa hum yaalamun ragal yàlla mbokk yi mooy li nga xam ne mooy ubbi xol bu tëju suñu borom tabaraka wa taala wax ne ne su ngeen ma ma xamal li gën a gaaw ci ubbi am xel xam-xam gaaw caa dugg mooy ragal yàlla day gis nañ ma bindal nañ ma wax ñaan goo xam ne dina samam xel neex waaye lay tax am xel ubbiku lislaam man caa dugg mooy ak ragal yàlla rek wattaqullaha wa yuallimukumullah su ngeen ragalee yàlla rek suñu boroom tabaraka wa jàngal leen ubbi seenum xel euh, aw yiw mënta dugg njub gi nga xam ne moo nekk ci alquran suñu boroom tabaraka wa nee na ñi ci mën a jariñu mooy bakkan yi nga xam ne ragal nañu yàlla hudan lil muttaqin alquran ak njub la feese waaye nag ñeel ñi nga xam ne ragal nañu borom bi tabaraka wa taala ragal yàlla ci la nit ki di xàmmee diggante dëgg ak caaxaan ragal yàlla ci la yoon wi di leere ci kanamam suñu boroom ne yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te ngeen dëggal yonent bi mu yónni nee na su ko defee day dana leen fay ñaari yoon ci yërmandeem te it dana leen defal leer goo xam ne ci ngeen di doxe wa yaj'al lakum nuuran tamshuuna bi te itam wa yaxfir lakum dana leen jéggal seeni bakkaar nangu ay jëf suñu boroom tabaraka wa taala mi ngi ko yamale ci ku ragal yàlla innama yataqabbalu llahu min almuttaqin xam ngeen ne innama day takk day xasr suñu boroom tabaraka wa taala ki muy nangul ay jëfam mooy ki nga xam ne rek ragal na yàlla teraanga itam suñu boroom tabaraka wa taala mi ngi ko jagleel ñi ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen fa yàlla kookee mooy ki ragal yàlla xam ne ñoo ragal yàlla itam ñooy mucc ëllëg ci safara amul leneen lu mën a musal ci safara du alal du daraja du mbooloo lu dul taqwa borom bi ne amul kenn ci yéen lu dul dana teew safara dana teew siraat nee na loolu atte la boo xam ne suñu borom dogal na ko ba noppi waaye bu boobaa nag ñuy mucc mooy ñi nga xam ne rek indaale nañ fa ak ragal yàlla summa nunajji alladina ttaqaw wa nadaru zalimina fiha jisiya waxaat ne wa yunajji llahu alladina ttaqaw borom bi tabaraka wa taala dana musal ñi ragal yàlla ñu daal di texe laa yamassuhum suu wala hum yaxsanuun dara loo xam ne lor la du leen laal te itam duñu am lu ñuy jàq bu ëllëgee imaam ali ibn abi talib melal na ñi ragal yàlla ne ñoom foo leen gis ñooy ñu baax ñi ñooy ñi nga xam ne seeni wax lu jub lay doon ñooy ñi nga xam ne seenu col lu digg doomu lay doon nee na ñooy ñi nga xam ne seenu dox day ànd ak toroxlu dañuy damm seenu gis ci lépp lu suñu borom tabaraka wa xaraamal dañuy téye seeni nopp ci lépp loo xam ne amul njariñ duñ ko déglu waaye dañuy wàcce seen bopp bu ñu nekkee ci naataange ak koom-koom comme niñ koy wàccee bu ñu nekkee ci tortor ñooy ñi nga xam ne yàlla dafa màgg ci ñoom ba leneen lu dul yàlla tuuti na ci seen bët ñooy ñi nga xam ne seen xol yi foo ko fekk dafay jàq ñooy ñi nga xam ne ay nit ñi wóolu nañ ko kenn ragalul ay wuy bàyyikoo ci ñoom ñooy ñi nga xam ne nee na seen càkkuteef ci àdduna lu wayat la waaye la liit ñu yor itam nee ñu ci doylu lañu nee na ñooy ñi nga xam ne dañoo muñoon ay fan yu néew suñu borom tabaraka wa taala faye leen ko noflaay bu sax moom li borom bi naan kuloo wasrabu hani an bi ma aslaftum fil ayaami alxaaliya waa àjjana ëllëg yàlla ci yàlla boole loolu di borom bi tabaraka wa di wax leen ko ca la ngeen muñoon ca fan yu weesu woon ya fan yi adduna yi fan yu néew a néew la soo ci muñee rek li borom bi tabaraka wa taala digle nga di ko def la mu nga di ko ba ëllëg noflaay bu dul yem fenn mooy li cay topp nee na ñooy ñi nga xam ne nee na bu guddee dañuy sappe di jàng alquran di naafil la nee na di bóof di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu musal leen ci safara te mooy ñi nga xam ne dañ naan inna kunna min qablu nad'u annahu huwa albarru rahim waa àjjana yi bu ñu duggee aljana loolu la ñuy wax inna kunna qablu fi ahlina musfiqin fa manna allahu alayna wa waqaana azaba samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwa albarru rahim kon wuute naa kam ne innahu kaane fi ahlihi masrura ñoom dañ ne inna kunna xablu fi ahlina musfiqin buñ masaa nekk ci sunum njaboot dañuy tiit di ragal yàlla ndax njaboot gi danañ leen teg ci li neex yàlla am déet waaye ka nekk ci biir njabootam moom jaaxaan innahu kaane fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yaxuur fala inna rabbahu kaane bihi basira kooku xam ngeen ne ñoom ñaar bokkuñu ak mujj kon fi ahlina musfiqin ak fi ahlihi masruran nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax njaboot neex na lool waaye boo nekkate ci sa biir njaboot na nga leen teg ci li neex borom bi tabaraka wa taala moo xam ay soxna la wala ay doom la bul dabu seeni bànneex ba ñu jiital la nga nekk seen surga boo xam ne da leen di liggéeyal rek ñoom ñuy bànneexoo waaye na nga leen teg ci aw yoon wi la borom bi tabaraka wa taala digal booy tax kër bu ëllëgee nga mën a bokk ci ñuy wax ne fa mann allahu alayna wa waqaana azaba samum yàlla day moonu baaxe fegal nu mbugalum li nga xam ne tey mooy mbugalum safara ah, fugloonteeg suñu borom tabaraka wa taala du dara lu dul foo toll sa xol di yëg ne suñu borom tabaraka wa taala jege na ko imaam Shafii rahimahullah daana wax ne bokk na ci mbir yi gën a jafe nee na tabe te fekk nga néewle yor lu tuuti ba noppi tabe nee na di sàmm ba noppi wéet wala fi di ko wax ni wéet gore lu jafe la ñu baree bari bu ñu wéttali ko mbooloo mi teew mën nañoo baax mën nañ fee bàyyi yi ñu tere waaye suñu xasee wéet nag ah léeg-léeg baax kooku ak bàyyi yi ñu tere dana leen jafe lool mu ne itam wax dëgg ci koo xam ne dee sa yaakaar njariñam wala ñu ragal loram toog ak koo xam ne yaakaar nga ci moom njariñ wala nga ragal ci moom lor ba noppi ñemee wax dëgg ci kanamam nee na loolu bokk na ci mbir yi gën a def bokk na ci li yéeme mbokki jullit yi koo xam ne da muy nëbb jaam ñi ay bàkkaaram di leen wan ak mbaaxam di ko wan nag di wan borom bi tabaraka wa taala mi ko bind bàkkaaram yooyu ak jëfam yu ñaaw yi moo tax ñu wax ne ragalal yàlla bu borom bi tabaraka wa taala doon ki nga gën a ñàkkal solo ci ñi lay xool xam nga ñi lay xool bari na lool te ñu ca baree bari looy def suñ ne diwa ngi ñëw nga daal koy nëbb wala nga daal di làqutu te ñooñu lay xool ñépp nag borom bi tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo lay fuglu te moo lay mën a fay ëllëg nga mën a nëbbu ñi ci des ñëpp te moom bi borom bi tabaraka wa taala soo wéeteeg moom nga xam ne moom rek moo lay xool nga ñemee lu ne te su doomu aadama yi ragal lu ne nga xam ne kon day mel ne xoolub borom bi tabaraka wa taala moom nga gën a ñàkkal fayda ci xoolub doomu aadama yi ci des bu la doomu aadama yi xool nga wattandiku di jéem def lu baax bu demee ba nga xam ne sa borom nga wéetal moom rek moo lay xool nga ñemee lu ne loolu ku ko def kon da nga yëg ne melokaanu ragal yàlla euh, nekkagul ci yow mbokk yi ragal yàlla su fekkente ne dëgër na ci doomu aadama bi su amee rëcc rëcc wala seytaane bëgg koo jekku ragal yàlla day di jëf ci moom jëfam mu daldi dël siwaat ci ak njub moom la borom bi ne ñi amuk ragal yàlla ida massahum taifun min asheytaan seytaane demee ba bëgg leen a laal tazakkaru fa ida hum mubsiruun dañuy waat daal di gisaat yoon wi daal di nekkaat ci njub bi mbokk yi ragal yàlla nag bokk na ca ponk bu mag a mag boo xam ne ñenn ñi duñ ko ci di boole te mooy aqi doomu adama yi ni ngay taxawee ci aqi sa digganteeg sa boroom ci def ay ndigalam wattandiku ay tereem noonu nga góor góor góorgóorlu itam nag ci aqi doomu aadama yi moo tax ibnu rajab rahimahullah di wax ne ñu baree baree bari ci ñi nga xam ne góor góorgóorlu ci diine góorgóorlu ci topp yàlla waaye léeg-léeg nag dañuy neenal àq yi doomu aadama am ci ñoom wala ñu gàttañ lu ca lool mu ne jafe na lool boole diggante àq yàlla ak àqi jaam ni ndax kooku góorgóorlu ci diine lool góorgóorloom googu léeg-léeg da koy wor ba tax mu jàpp ne lu mu def jaam yi itam moom dara du ko ca fekk ndax moo leen gën léeg-léeg yëg boobu yëg-yëg boobu day xaw a am ci moom ba mu xeet nit ñi ba jàpp ne lekk seeni alal wala xas leen wala doyadal leen loolu moom du dara ci moom ndax moom ci seen kaw la dekk ndax li muy jàng ci alxuraan wala li muy woor wala li muy julli kon doomu aadama yi ñu suufe lañ ci ñoom ñoo xam ne bu leen xasee wala mu lekk seen alal itam dara du ko ca fekk loolu nag lu mat a bàyyi xel la xam ne kat ni nga war a sàmmante àq ji sa digganteeg sa boroom noonu nga ko war a sàmmante itam sa digganteeg sa moroomi jaam te gis nga boroom bi tabaraka wa taala bi muy melal ni ragal yàlla bokk na ca mu ne dañuy denc seen mer bu ñu leen merloo waaye mer ma duñ ko denc rek wéyale ko waaye dañuy jéggal ka nga xam ne moo leen merloo xam nga kon kooku mi ngi rafetal digganteem ak doomu aadama yi waaye day def lu baax itam jëme ci moom ndax jullit bi borom bi tabaraka wa taala daf koo digal mu baax waaye jéem a baaxal ñeneen te ki nga xam ne lu ñaaw la jëme ci yow boo delloo lu ñaaw la ci moom lim ne wa jazaau sayiatin sayiatun misluha ki def lu ñaaw moom lu ñaaw la yeyoo waaye fa man afa muy benn étape wa aslaha muy beneen étape mu ne fa ajruhu ala allah am na ñoo xam ne ci fa man afa jeeg lañ yem ku leen def la ñoom ñu jéggal la dem seen yoon waaye bi ñu la jéem a réparé nag parce que dañ laa war a faj kii def lu ñaaw daa feebar bu ko bàyyi mu dem ak lu ñaawam loolu mu yor waaye faj ko moo tax mu ne wa aslaha loo koy faje nag mooy rafetalal jëme ci moom ki la sànnil xeer nga sànni ko pom ah moo xam ne ndekete nit ñu yoruñu ay xeer waaye ndek am na ñu yor pom dana jéem a wuti pom moom itam ndax ki yor xeer dafee ne dañ ñëpp xeer lañ yor ba tax ma ku ko ku mu gis sànni la dafee ne bala bu la sànniwul nga sànni ko kon nag soo rafetee lay jëme ci moom mu gis na li nga ko defal kat moo gën lu ñaaw lim yor bu ëllëgee moom itam dana wuti lu rafet ndax borom bi tabaraka wa taala moo bind doomu aadama ci ku muy rafetal moom rek bu yàggee mu bëgg la idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adaawa ka annahu waliyun xamim kooku xam nga faj nga ko adaawa la la ëmbaloon léegi mu nekk waliyun xamim kooku faju na ak noonu la la dencaloon ci xolam tey mu nekk sa xaritu benn bakkan boo xam ne lu la naqari mu naqari ko lu ko waral idfa billati hi ahsan lu ñaaw li mu jëmee woon ci yow yow nga jëmee moom su rafet loolu mooy li nga xam ne moo ko faj loolu mooy melukaanu ko ragal yàlla borom bi tabaraka wa taala wax ñi ragal yàlla li nga xam ne moom la leen di faye ak barkeel gi seen mbir di am ci adduna mu ne walaw annahum amanu wattaqaw maanaam ñi nga xam ne adduna dana tax léeg-léeg ñu ñàkk a ragal yàlla nee na mu ne ñoom de suñu gëmoon yàlla te ragal ko la leen suñu borom tabaraka wa taala di faye moo gën fuuf loolee ñu jënde ñàkk a ragal yàlla moo xam alal la moo xam daraja la moo xam lu mu mën a doon ba tax ragalatuñu yàlla bu ñu saxoon ca ragal yàlla ga rek dinañu am lu ëpp borom bi dala wax ne ñi dëkk ci dëkk yi suñu gëmoon yàlla ragal ko danaa leen ubbil bunti barke ci asamaan ak suuf dellu waxaat ne ku ragal yàlla suñu borom dana la defal maxraj mooy loo dugg tem jafe dana la wutal noo ca génne ci jàmm te dana la wërsëgal woo xam ne foogoo ko woon dellu wax ne itam ku ragal yàlla suñu borom dana yombal sa mbir yépp te xam ngeen ne àdduna ñaar yooyu rek a fi nekk loo dugg mu jafe nga bëgg caa génn ak loo bëgg a dugg mu jafe xamoo booy jaar ba dugg bu dee li nga bëgg a dugg wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra da koy yombal nga dugg li nga dugg mënatoo génn wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kon ragal yàlla mooy solution ci bépp mbir boo xam ne doomu aadama bi am na ko amma ci aljanna suñ borom ne laakin alladina taqaw rabbahum mbooleem lu borom bi tabaraka wa taala jige ëllëg ku ragal yàlla rek la ko jig masalul jannati allati wu'ida almuttaqun inna almuttaqina fi jannatin wa uyun inna almuttaqina fi jannatin wa na'im boo ko dee topp ci alquran limu na lool lool lool borom bi ne ñooñu ragal yàlla day lahum xuraf min fawqiha xuraf ay étages lañu leen di defal ba yowmal qiyaama tajri min tahtiha al anhaar waad allah mu ne yàlla moo leen ko digle te laa yuxlifu llahu almiaad yàlla lim digle du faussé mukk loolu mu leen digle dana leen ko defal fokk da ngeen ciy jot del wax ne inna almuttaqina fi jannatin wa nahar fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir nee na ña nga ca àjjana yaag dexee ñu ngi ci place boo xam ne fa la ñuy ne nekk fi borom boo xam ne bu tedd la bu am kattan la del wax ne inna almuttaqina fi zilalin wa uyun wo fawakiha mimma yastahun kulu washrabu hadian bima kuntum taalamun taamaluun nee na bu ëllëgee ñi ragal yàlla ñu ci ay keppaar yu féex ak ay dex yoo xam ne yu neex ndox la ak ay fruits yoo xam ne loo bëgg rek lu sa xel dem rek ma nga ca ñu naan leen kuloo wasrabu lekk leen te naan hanii an ñu ndokkee la leen ko bi ma kuntum taamaloon kon nag mbokk yi nañuy def ragal yàlla du ab yóbbal wa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa borom bi dana wut leen yóbbal yóbbal yi bi ci gën mooy ak ragal yàlla allahuma aati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya arhamu arrahimin wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain